ah man jaay li ma mujj dund ak moom mooy day day mujj gi dama naan du ma ko gis parce que su ma ko gisee amaana boobu xam naa ne xel mi ñaaw na ci feebar ay rangoñ kaay ma ko gisee day jooy ma jooy mu dem yàlla xam na vraiment mu nekk lu métti mais mu dund ak ak feebar bi ñu def aussi ak gëm yàlla euh, ba yàlla def li nga xam ne moom tamit euh, ñu ñaanal ko mais vraiment nit boo xam ne la li ma mujj dund ak moom li ma dund ak moom yëpp dara ñaaw lépp ci rafet jiite yombul mais may jiite ñëpp vraiment amoon na ci am solo. ñu gis ci biir Sénégal ñu ñu mën liggéeyal muy waa ko benn yoon nga ko doon jàppale bu baax. waaw mais fu mu ne pour man loolu sax loolu loolu du wax ji wax ji mooy nit ki moom bu génnee àddina yàlla moom mooy jël. bu ko yàlla jëlee ñu ah, gunge ko ba denc ko fii nga xam ne suñu xel dal na fi parce que man man man laayeen laa donc fekkee ni moom dafa ci dundam dafa ñaanoon pour bés bu ngi ko yàlla jëlee ñu denc ko fi sama xel da ci dal ñaanal ko rek nit moom bu génne àddina doo doo doo xool mënoo def dara ba indiwaat ko du dul ñaan ñaan la soxla nañ ko ko defal mais leneen amul importance. lay wax waa famille am ay waa famille am ak ñëpp famille am ñëpp laay wax que ni vraiment massa parce que famille am aussi du waa kër jabaram waa këram rek ñun tam famille am la ñu woon donc a perte Sénégal yëpp moo perte parce biir dundam vraiment lépp lu mu wane lu positif la mos merci ba tey xam ne de renommée mën nañu wax international nga dund ak moom lan nga mën ñu fàttali ci moom loo xamante ni sama waa euh, maa ngi fàttaliw moo woo ko sama bureau am benn projet ak moom moo woo ko ne ko kaay sama bureau mu ñëw toog ma toog ma ne ko dama bëgg a def lii ak lii ak yow. Njaay jékki-jékki sëgg ma ne ko loo sëgg nekkat mi ngi jooy moom boo ko waxee dara balaa mu lay tontu day jooy ba pare ndax émotion rek la feesoon vraiment nit ku baax la woon vraiment Njaay moom. loolu lañ ko mën a mën a seedeel di ñaan te te du ñun rek ñoo perte ah, lenn peut-être lu may lu may regretter rek mooy ah, je pense que talaam fi mu tolloon sax peut-être que sax mënoon na weesu fu mu nekkoon mais loolu la yàlla dogal mais vraiment nekkoon na nit boo xam ne li ñu gis ci mot ci talent ci moom sax pour man li mu amoon weesu na ko te il avait vraiment des projet mais depuis feebar bi tëddal ko vraiment mu nekk ci coono yu metti mais ànd ko ak gëm yàlla donc vraiment ñaan rek la ñu mën a def jërëjëf. moom mooy jël ñëpp lu mu def rek noonu moo gën dañ koy nangu mais bu metti la parce que nit bu mu doonal vraiment Ndiaye en dehors de son talent immense boo xam ne kenn ko mesurer. vraiment nit bu mu nekkoon ñu naan sàmmkatu mboq boo xam dañ koy soxla man mun naa seedee que ni nit boo xam ne la jullit la mais xolam moom moo moom moo yaatu Ndiaye booy wax ak moom sax day jooy lépp même bi mu tawatee saa yu ma ko gisee day jooy ma jooy mu dem duñu sax wax par message la ñuy wax ndax émotion bu métti vraiment ku Sénégal perte groupe Futurs Médias perte na mais Sénégal perte na parce que pour man talent bi Ndiaye amoon sax wanewul lépp multidimension Boubacar Ndour am na ñu doon insinué que groupe Futurs Médias toppatoowul Ndour yow directeur des programmes tey jii ñu bëgg nga si tontu waaw mais lu may tontu man du ma du ma am yaakaar du ma am yaakaar ma nekk taalibe Seydina Limaamu hmm. moom ci biir dundam mu ne nañ ko denc fii ma ñëw gunge ko fi suul ko ba pare di xalaat lu nit ki waxoon ak lii fu mu nekk ni ay mu mënu ko indi du dëkk nañ leen rafetal nit bu génnee àddina nañ leen ko ñaanal loolu moo am solo mais du ma dugg ci mais wane na ni que taxaw ngeen ci mais déggoo ma ne taxaw ngeen ci bu baax waaw mais mais nga non lu tax ma interpellé la parce que yow yaay directeur des programmes bi jàll si télé bi yow la xam nga xam nga lu am solo mhm. déggoo man la Ndiaye du liggéey rek moo ñu boole woon mhm. liñ doon séq ak moom man du ma toog ci média yi di ko wax mhm. non pour nga mais mais mais débat amul. Hmm. yàlla ko yàlla. xare àjjana mais man du ma toog fii di perte sama temps di wax. waaw dénkaane bi ñu booloo ñu dajaloo ndax toujours ñu dégg kàddu boobu. waaw mais non dama pour man du artistes yi nit ñi ñoo war a dajaloo. Hmm, artistes yeeg ñëpp nit daal. Hmm. da ngay fexe ba nga am seede yi xam nga nit bu génnee àddina. seede mën na mën na nekk seede de circonstance. maanaam ñu seedeel la. loo xam ne ki lay seedeel xam ne du dëgg sama bàmmeel laa taxaw fii ma taxaw ñëwoo fi wax lu dul dëgg eh. njaay nit gënu ko waaw loolu moo am solo donc du entre artistes yi entre nit yi waxuma la jullit yi sax entre nit yi mm, nañ leen cultiver mm. vraiment lu rafet looloo am solo jërëjëf jërëjëf nekk ngir yàlla doon ci fan amul benn numéro téléphone ah te ñu far ko amul xaalis na yow kay fexeel ba mu sa numéro rek di nga ci jot kii nii même maa ngi lay yónnee localisation taxaw leen waaye saako bi jub

Thank you. waaye Ablaye yal na ko Seydina Limaamu teeru yal na ko Seydina Limaamu teeru te teeru na ko ba nopp moom mii ne moom mii ñoo bokkandoo nekk di waaye su ma mosaan xëy. waaye su ma mosaan xëy. ba summeeku ba mu sol yéreem ma ba summeeku ba mu sol yéreem mu sol yéreem. may la mu koy bëggale. mooy sikari Seydina Limaamu. mooy sikari Seydina Limaamu. te day sukk nii. te day sukk ci suuf. billahi. wallahi wallahi. wa taalaahi. di ko sikar. di ko sikar. ba ma lamb sama ba ma lamb sama poos. ne ko Ablaye loo soxla. mu ne ko bëgg la rek mu yëkki teral ko ñu taal ataay ci suba gi mais ku baax a ngi jullit piir jullit ñoo daan bokk ñoo daan bokk di julleendoo di julleendoo ca biir jàkka ja ca biir jàkka ja yéen ñu Cheikh Seydi defal ca kër ga yéen suñu suñu directeur defal yéen leen defal ca biir kër ga waxtu julli bu jotee waxtu julli bu jotee jàpp jàpp julli julli jaamu yàlla jaamu yàlla ñun ña fa nekkoon ñëpp ñun ña fa newoon ñëpp amul murit amul murit amul tijaan amul tijaan amul xaadir amul laayeen ku mu daawul si karal ku mu daawul si karal billahi billahi wallahi wallahi wa taalaahi noonu la ko doon jëfe noonu la ko doon jëfe ku mu gis ku mu gis daf lay bégal daf lay bégal ci waxtaanam ak di la toppandoo ak di la toppandoo ca la nga gën a bëgg mu di la ko terale yal na ko yàlla jéggal yal na ko yàlla jéggal yal na ko yàlla jéggal yal na ko yàlla jéggal yal na ko Seydina Limaamu Teeru barke Baay Laay Seydi